koy amal euh, ci yenn sites yu bari ak yenn de construction yu bari. waaw loolu dëgg la euh, dañu koy saluer parce que en fait suite logique la ak fii autorités yi tolloon ak lañu ñu woon sénégalais yi je pense que ñoom def nañ li ñu ci war a def def nañ ay visite de terrain bu yàggul dara rek ministre ñëw na fii ci littoral bi déglu nañ askan bi léegi nag service compétent yi war a entrer nag léegi ñooy dugg nag. Euh, Descos moom ndaw la ñoo war a saytu lépp loo xamante ni rek dafa aju ci wàllu tabax ak yooyu mais damaa gëm ne wàllum tabax moom Sénégal fii li ñu fi respecté barewut non seulement suuf si ni ñu koy amee lewut baaxut sax mu ne balaa ngaa tabax danga war a am permis de construire. Mm-hmm. Mm-hmm. autorisation de construire doonte suuf si ni ñu ko amee dafa lew balaa ngay tabax da nga war a am autorisation de construire laa jël ñu ko am fii bariwuñ de te ñu ngi tabax. kon Descos moom damaa jàpp ne am na loo xam ne sax li ma doon wax léegi inspecteur du euh, du travail rek ñoom ñi nga xam ne loolu moom mooy seen métier dafa am dafa am service yoo xam ne waru ñoo jóg ci terrain bi ñoom terrain rek la ñu war a def terrain parce que boo ñëwee am sa suuf commencé tabax yow fi nga war a aw yëpp awoo fa xëy ñëw fu ñuy mujje nangu mm-hmm. toj wala ñu mujje li am solo mooy gis nga suñu suñu suñu suñu administration aussi daf ci am ñoo xam ne parce que parfois nga ñoo gis ku génn kayit yu lew ah kayit yu yu baax a baax a baax mais kan moo koy jox c'est l'administration wàllum dëkkuwaay ak suuf moom man damaa gëm ne ñaari service yi seen responsabilité mënu ci génn muy urbanisme ak impo et domaine mënuñ cee génn. parce que mënoo ñëw rek fekk littoral bi mu yaatu rek nga ne nga ñëw rek daggal sa bopp ne non fii maa fi dëkk par force déedéet dafa am fooy dem pour ñu jox la kayit pour nga mën a ñëw def loolu. Mhm. fa ngay dem nag est-ce que yow ñooñu jaar na yoon wala jaarul yoon loolu mooy la question moo tax arrêt bi ci logique boobu la nekk Ahmed nee na enquête yi tàmbali na li ma ci neex mooy gars yi newuñ rek ci suuf si rek de gars yi ñu ci front yu bari. front yu baree baree bari démb am na benn yéenekaay bu annoncé arrestation wax na dëgg gis nga soxna amenata des na tuuti léegi ñi ñi ñi ne woon mbir yi daay yéex léegi ñu tàmbalee gis résultat yi. wala ñu accéléré ba mu jaaxale. du suuf am na ci ci front yu bari lañ nekk et loolu nag bonne gouvernance la transparence la reddition des comptes dafa am ay terme yoo xamante ne maanaam bu fekkee nit ku jub nga waroo ko waroo waroo ko ragal. waaw mais nag boo dëngee nag ba mel ni man moom doo bëgg yi ñuy évoquer yooyu. parce que dalay dugal. te soo sa maa ngi gis. ca fële na la ca Mbourkat. ñi nga xamante ne ñoom la ñu arrêté woon seen travaux yi euh, ñu ñu def demande à que ñu daal di euh, lever boobee décision pour que ñu mën a continuer mu mel ne ñooñu tey jii euh, amuñu lu ñuy tiit wala bu ñu doon tiit tamit duñu ñu toog di def lu ni mel wala ànd nañu fit boog du moins. mais loolu moo ci nar a nekk difficulté bi état bi nar am wax naa la ko léegi maanaam ki nga xam ne dafa ñëw. yow sa ndaw yow état sa ndaw moo ko jox kayit mais kooku kooku loo ko mënal boo jëlee yëfam da koy dédommager te procédure bu gudd la laaj da ngeen dem tribunal wuute nag ki nga xam ne moom daa ñëw labaj maanaam maanaam sàccee fi jàmbur ne lii maa ko moom fekk moomu ko mais ki nga xam ne dafa dem doonte foofu kenn waru koo joxe mu dem yéeg wàcc yéeg wàcc ba ndawal buur jox ko kayit mu ñëw taxaw. foofu la difficulté bi nekk ci ñi nga xam ne dañoom ay këyit ñi nga xam ne amul këyit ñooñu moom seen mbir yomb naa régler waaw ñooñu moom seen mbir yomb naa régler mais am këyit aussi tekkiwul na yow da ngaa war a da ngaa war a moom àll bi yëpp. benn nit war a aligné ay hectares yu dul jeex waaw mais sëñ bi loolu fu ko nit ji fu ko nit jëme au moment où sénégalais yi ñu ngi fi bëgg am espace mu tëleen gis nga suuf. Euh, soxna Aminata dafa bokk ci les enjeux yi nga xam ne léegi réew yi réew yi dañ ciy accorder beaucoup d' importance parce que ku moom sa suuf rek day moom sa réew gis nga suuf si bu ñu caaxaanee ba mu dugg ci ay loxo loxoy étranger muy ñun Sénégal pare nañ est-ce xam nga ne est-ce que xam nga ne Dubaï Dubaï boo fa dëkkut mënoo faa jënd suuf. boo fa faa jënd suuf li nga fa mën a jënd mooy appartement bu ñu tabax ba nga ñëw jënd ko mais suuf suuf. maanaam mënoo taxaw ne yow yaa ko moom te te nekkoo dubayot loolu mooy loolu mooy sécuriser su suuf mais fii xoolal suñu su suñu suuf yi nationalité yëpp a ngi ci indien yaa ngi ci turc yaa ngi ci ñëpp a ngi ci. ñoo ci gën a néew lañu dañ ciy am loo xam ne sax sénégalais duñ ko am kon léegi ñun génération yi ñëw après ñoom tey les projet de développement yi ñu war a liggéey yëpp fan lañ koy defee moo tax suuf dafa am solo suuf ak ndox ci réew léegi dafa ay enjeu la. moo tax DSCOS na ci def li ci war a def autorité def ci li ñu ci war a def ba pare gouvernement bi ànd ci ak fulla ak fayda ak responsabilité bu mat sëkk ñi ci am ay këyit bu fekkee dañoo dañoo jël lu jéggi li waroon a am dañ leen jox li liñ méngool ñi ci amul këyit nañ nangu seen yëf moom moom c'est aussi simple que ñi ciy labaj nag ñoom enquête yeeg yooyu kuñ ci war a jàpp it nañ la jàpp te loolu dafay tax ñeneen ñi ëllëg kenn du ko ñemee def. mais mënuñu bàyyi alal bu sénégalais yëpp bokk ay nit ñëw parce que yow kilifa nga aligné ay ay hectares yu du jeex parce que am nga tuut ci réew mi siiw et après gënuloo sénégalais lambda bi nga xamante ne yaa yaa moom yéen a bokk réew mi te parfois njuuj njaaj dong nag ci lañ koy amee njuuj njaaj képp parce que ñoo bokk ñoo bokk parti politique ñoo la xaritu xaritu président la wala ministre sàngam sama xarit la gars yi dagg di joxe rek waaye lu ñu fi defoon rek. soo sa na leen jàpp ne. lu mu fi ñu defoon nañ jàpp ne mënees na koo dindi gis nga état lu mu bëggul def da koy jaral sax bu jaree indemniser mu indemniser nangu yëf yi. mais tali bu war a jaar fenn. doy ah. na exemple. dem ci jusqu'au bout. tali bu tali rek ah. tali waxuma sax dëkkuwaayu ay nit mais tali foo xam ne yow la fay jaar nekkul sax ay nit tali mais buy jaar fenn nu état état. da koy jël parce que parce que lépp loo xam ne cause d'utilité publique la. doonte yaa ko moom dañ koy jël. terre bi bi ñu koy tabax dañoo daaneel kër yu bari seen i borom dañ leen am na ci ñoo xam ne ba léegi nag ñu ngi coow. indemnisation yooyu ba léegi am na ñu koy coow ci réew mi mais teew dañoo raser ay kër pour que projet bi mën a continuer mm-hmm. loolu moom moo tax espace ñu koy ñu koy bàyyi xel léeg-léeg mais yow bu fekkente ne gis nga ndakaaru xam nga fu fi des maanaam gars yi armeel yi lañ mënalul dara ak technopole ba nga xam ne ndox maa fa ne technopole bu amutoon ndox. kon bi saax saaxee nañ ko bu yàgg yàgg. soo senee ne gars yi mënuluñu armée lii dara. armée li mu sëg yi sëg yi da xanaa doo di souligner yi nag laa foog di fa tabax. géejewaay bii mooy ñaareelu armée la moo tax ñu ne lundi lundi. Hmm. dañoo réunion barki démb ak imaam yi ñu ne lundi incha allah ci la ñuy ubbi li ñu commencé di fa denc néew yi géejewaay amoon na armée. doon nañu fa suul. jotoon nañ faa suul. léegi am nañu nee nañ benn nit armée li laaj ma mooy fan. Hmm. mooy amoo tefes. ay kër fa na léegi. ay étages. loolooy coow li. Ah. non daf daf ne armée lu rek lañ fi bàyyi yow fu ñu dagg ba pare ni fii ay armeel la dagg ko ba pare ni fii ay armée la mhm. foofu noonu tey dëkkuwaay la. mais moo ko mais lan moo xew. ku ko jox ba miir bi ñu wërale woon boo daan dem géej da nga daan romb noonu ñu wërale miir bu zone bi mais affaire bi nan la mujj deme ba armée yooyu nax saay. lépp ci joxin bi la rek. te ñu doon wax waaw fi ñu ne ne suuf si moo baaxu la pourtant armée yu bees yi day ca taatu géej gi la nekk ba léegi bu ñu yéexee tuuti armée lu chrétien yi ak musulman yi ñu dagg fii nii ba waralee ko nii buñ fa gaawalee di denc léegi nii laa lay yox nii xoolal prédateurs yi dikk arrière seeni camion mu daanu ngay yéexantu yéexantu ñuy avancé di yéex yéex taf taf taf taf ba xoolal day jékki-jékki doo dese dara. <laughs> waaw parce que ñi leen koy jox la moo tax état bi aussi dafa war a wax ay ndawam ah. ah non bi yow Amine bi mi ngi jóg pour régulariser lu ci bari ndawal état ko def loolu mooy loolu mooy dëgg ku ñëw taxaw ay këyitam yoo xamante ne dañ koy signé mu nekk ay lu leer nañ mais ku koy joxe. erreur état la te état ah, la mën ko léegi ñu ci nekk nag ay ay fonctionnaires véreux yi nga xam ne si nañ ma baal ci kàddu gi ci guerre la ñuy dox ak yooyu. mais ñooñu nag vraiment dañ leen war a identifier aussi bu ñu leen waree teg ay daan ñu teg leen ay daan. Mm-hmm. ay armeel nga ñëw fekk ko caxat caxatee ko joxe ko nit ñi dëkk ci loolu ko man pour man loolu catastrophe la. lu lu doy ah, waar ah waaw. voilà professeur mi ngi noonu mbirum arrêt d'escos yi nga xamante ni fësal nañu ko.